dikkati na ana ku ne woon bu ma desee ci coow li day léegi mu amub daaneel 24 heures yéen kaay naan man ci loolee nag la bugaan géy dani nekk faf moom jiital gëm sa bopp day ma dem di deeyoo xalifi ci seeni nopp le regard yéen kaay président bugaan géy dani ma nga dem ci kërug diine yi mani la di fa kalaame président Macky Sall di ko wili pande l'évidence yéen kaay bugaan géy xalif général bu leew naña seen Cheikh Mahi Niass day di décoré daal di koy honoré ba mar day taali l'exclusive yéen yi daal di tëjoog ñoom wax leen la nga xam ne mooy dëgg ji am ci réew mi gannaaw ba mu demee ca Touba moom Bougane Gueye Dany dem na ca Medina ba ak ca Léona Niassène daal di waxtaanee la nga xam ne nag moom la Sall ngaari lam toora bur gën a dëkkeeg ñun ci réew mi naan leen Sall dafa yor yet woo xam ne daanaka daf ñu koy dóor ñun askan wi dóor yu métti te bu janoog yéen teex teex may ree wane geneenu kanam mag ñuy torturer moom président Macky Sall mag ñuy salfaañe suñu àq ak yelleef moom Sall nga ñuy caxat-caxatee ñun askan wi ñu menacer te ci naan ñoon lu ma neex laay def ci yéen xanaa xanaa ngeen neexal ma naan leen nag fii ci Sénégal amul terroriste libération yéen nan naan kon moo ne am na ñun fi jàpp wax leen ay terroriste lan l'exclusif naan man bugaan nee na kilifa diinay terroriste amul ci réew mi benn terroriste moo fi am mooy ki nga xam ne moo yor dooleeg sañ-sañ ci réew mi te jëmalewu ko kenn ku dul ci askanam naan leen dialogue national bi dil la Abdoulaye Dieye DG AIBD ci l'indépendant yéen kaay naan ko déet ma ne la réew mi ak fu mu toll ci wàlluk een ci wàllu waxante lu ñaaw ak salfaañe mbaadu nag dialogue dem waxtaane moo koy saafara bugaan gay dari ci l'exclusif exclusive yéen a kaay naan kon dialogue bi lu dul dil du ca réew mi ko di jee naan man en tout cas Mamadou Lamine Thiam nee na gannaaw dialogue bi Karim Meïssa Wade dina si waat ci réew mi bugaan ci l'exclusive naan la may wax a ngi gars yi daal seen intérêt bopp moo leen taxoon dem di dialogué te ba ca cappaandaw ga daa ngeen xam ni dialogue bi intérêt ñenn yi la bugaan gay dani naan xam naa xel ni Cheikh Maay Ñas am nay xibaar ab boolekat la koo xam ne day defar waaye faaw ñu dem déeyoog moom la nga xam ni moo am ci réew mi fi mu ne Cheikh Maay yi gërëm bugaan ñaanal ko teew nañu seen daal dina ñuy ñaanal Bougane Gueye Dany mu dem fa wili pande président Macky Sall ba maar day taal yi naan leen li leen sàll ngaari lam tooro wax waroona ak la nga xam ni moo am ci réew mi force occulte amu fi terroriste amu fi lu dal Sénégal fi ne président Macky Sall ko teg tribune yéen kaay naan maan moom Bougane Gueye kay dafa daal di effacé président Macky ne saraax ci njabootu kilifa diine yi naan leen dëgg nga xam ne dégg gu ko mën Gueye moom laa Diouf ca Senghor Abdou Diouf ba ci maître Abdoulaye Wade ñun dey ñaanaluñu kudul ab leader njiital gëm sa bopp El Hadji bu C2DS nan koon engagement bi nga am ngir sa askan ak sam réew daal jaaxal na ma lool l'indépendant yéen kaay mel ni ku naan maan ku wax lii day wax la ca des Sénégal service bu sigi coor dañ koo yàq yaxeet ba maar day taali jël wiitir ya daal di koy caxat-caxatee yàq bunt ya plafond ya daal di ñuul kuk ak taal goo xam ni def nañ ko ca bërëb ba fi mu ne deesu ko mën a jëfandikoo ndax manifestant ni dañoo daal di dal directeur bu kut ci l'observateur naan lii ñu def réewum Sénégal daal daal di jël ñaari oomu état bi daal di koy samp fa nga xam ni sàll ngaari lam tooro foofu la gën a def gën faa réussir le ñu daal di koy yàq bu dul yëfu saay-saay ak nërmeel liggéey jàmbur lu muy nuru màgget naan kuy werante yàq ak yëfu saay-saay amul ci réew mi dagaa doxantuwul ba UCAD ma ni te bërëb yi nga xam ne nag moo ëpp sañ-sañ ëpp doole ci biir UCAD googee la def katu ñaawtee fii daal di songu bokk na ci sës si foofee salle multimédia bi dañu ko yàq ba maar day taali daal di koy taal bus yoo ne day def personnel buykat bi ñu daal di koy lakk bibliothèque bu université ba ñu daal di koy lakk faculté bu lettre ba ñu daal di lakk fa nga xam ni fa nekk juróom fukki at ci ginnaaw lépp loo xam ni dencoon nañ ko ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lakk nañ ko faculté de droit ñu lakk amphithéâtre yi ñu lakk ay bureau ak i salle professeur ñu daal di lakk bus yi nga xam ni étudiants yi nekk ci fag médecine ak pharmacie moom lañ doon voyager ñu lakk direction général bu COUD ñu taal ba mar day taali màgget na ba ñu demee ba xam ni COUD amatuñ luñ fa yàq dañoo daal di songu étudiants yi campus social ba daal di caxat-caxatee fa nga xam ni foofu la étudiants yi dëkk màgget daal dina lii ngir ñu daal di koy defaraat dina jël temps wala ndax nag lépp loo xam ne liggéeyukaay la woon ca UCAD manifestant yi daal dinañ koy yàq ci anam wu ñaaw lool Omar Sow conseil spécial président Macky Sall APR yëmbal naan leen saay-saay rek jëfi rab ak jinne dong lañ gis ci réew mi Ousmane Sonko nag ànd ak ñoo xam ne dañuy caxat-caxatee alaluk askan wi caxat-caxatee seenu moomeel ak la nga xam ni def nañ ko ci réew mi te naan leen Sonko mooy kan kenn du ko àtt ci réew mi bu tooñee moo tax ba kenn du ko tëj mu am ñoo xam ne nag ay bukki leen sàngoo deru béy soobu nag ci biir askan wi di yàq seenu moomeel Omar naan ñoo ñee ngemb nañu ba dëgër fas yéene jàmmaarloo ak ñoom la nga xam ne Sall def na ko ci réew mii liggéey ko fi duñu nangu kenn di ko salfaañe te takk der yi ci réew mi day gàcce ma ñoom ndax nag budul woon ak ñoom làmbaay ñaaw Omar Sow naan nanu delloo si xel yi mooy dëgg ndax coow li coow li mooy réew mi moom yàq nañ ko l'info yéene kaay naan man sëriñ Moustapha nee na réew mi yàqoogul ndax Sall ngaari bu ne troisième la bëgg réew mi dana gën a yàqu wala ndax nag la Wade dundoon 2012 lu ko raw moom président Macky Sall dina ko dund gaaye naan kon la xew ca Amy Ndiaye ñii bi nag mu ne nañ ko defaat ci assemblée nationale bu boobaa assemblée bi ci boppam mooy daal di tas tasar sëriñ Moustapha naan ku ci nekk na ko xool sa bopp koo xam ni dangaa am sab ngëm-ngëm dëgg ci sab sëriñ doo nangu kenn ku koy manque de respect wala di ko moqué critique yéen kaay naan man coow laa nga cëppandub teen ba ndax Touba moom ñu élection dootu fa amati direct news ne ma ay dogal yoo xam ni sëriñ Mountakha moo ko jël le quotidien le quotidien naan man fatwa ba daanu na sëriñ Muntaxa nee na benn bureau de vote dootul amati ca Touba tribune yéen kaay naan man gannaaw ba mu mayee juróomi million wal fajri daf ca jaaree ni politique moom day daal di dakk ca Touba le peuple naan man booba coow laa nga ca Ousmane Sonko mi nga xam ne coow li coow li daal Sonko am ñoo xam ne ña nga ànd ak président Macky Sall ndeke yoo ñu ngay lënkoog Ousmane Sonko ci suuf le peuple naan man bokk na ci ñoom benn maire ak benn directeur général boo xam ne ma nga faree ca Tiwaawoon moom président Macky Sall nag xam na ni ñii ci moom la ñu féetee waaye daal ña ngay jokkoog Ousmane Sonko ca suuf libération yéen kaay naan maan ay ñoñam ña ngi leen di tëñ-tëñal ci anam woo xam ni métti na wala wuli njaay daal nañ koy jàppee ca kër Masaar ab vocal moo ko daal di dugal yéen kaay bi naan maan diggante ginnaaw raay ak géréw ña ngi fay jàppee ay militant Pastef di leen toppee ba ci wàllu financement terrorisme bentalab sow ñu daal di koy bàyyi moom Ousmane Sonko ba tey mi ngi tëju këram waa Pastef ci vox populi naan na leer Ousmane Sonko nga këram ba tey demul fenn benn kilifa diine woowu ko te it amul benn négocier bu muy def ak président Macky Sall Mamadou Gaynde Ndeye Badiane coordonnateur bu grand parti ca Pikine di xamle ci libération yéenekaay ne réew mi daal fi ñu toll ci ñaaw ñaawteef tollu ko ci jafe-jafe dialogue boo xam ni bu sincère la jóge ci xol tàbbi ci xol ñu waxtaanee réew mi daal di koy péncoo lii yee mën a tax nag bépp danger bu bàyyeekoo ca biti bëgg salfaañe lompoñal suñu réew ñu daal di koy gatandu waxtaanee suñu réew mooy dëgg l'évidence yéenekaay naan maan ak lu mën a am jàppale ni tabaski bi jege si na xar amul te cher na yoor yoor naan maan jàppale ni Serigne Saliou Gueye ñaar fukki fan benn ngi ñu làq ko jant bi tere ko wax Tribune naan maan ngeen jàpp it ne Modou loo ne na bàyyi na làmb Dakar Times naan maan ngeen jàpp it ne concert Wally Ballago Seck ca doom bu Paris ba am na fees na neex na Wally daal di def doom doom bu Paris moom fara maareen bi daal di jël Paris soppi ko maareen L'Observateur naan maan coow laa ngi ci réew mi booba ko xam ne nag ab faram moo ko ëmbal te mi ngi ci buumu sëy mu fexe ba jiiñ far ba viol fexe ba tëjlu ko ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm daanaka moom la ñu teg loxo groupement de recherche de répression de la fraude euh, bu àdduwaan nationale ñoo ko teg loxo ñeent ci ay doomu aadama la ñu fekk mbir yi sa ñoom sa Thiès euh, la ñu defee opération boobee bokk na si ñoom benn euh, waaye bu nga xam ne ni euh, nationalité sénégalaise laam de dëkk sa Cap Vert saisi boobee nag maam altine juróomi fan ci weeru juin bi 19h jotee gannaaw nag ba ñu exploité après enseignement ñu wàcc ñoom brigade polyvalente numéro un bu GPR bi maanaam groupement polyvalent de recherche ñu dem fekk délinquants yi sa quartier bu Thiès fekk nañu si ñoom lu toll ci ay coupure bien noir deux cent ak nag cent euros ñu ma ko ci lu ëpp benn euh, milliard bu ñu sukkandikoo ci bataaxal ba nga xam ne division de la communication et des relations publiques de la douane euh, siwal nañu ko Mamadou Fafa dañu waxtaanee kon violence bi ñu nemee ko ci réew mi euh, mu mel ni kon njiitu réew mi président Macky bu demee si sunu xalif généraux yi du leen wax dëgg gi du leen wax li am du samay kàddu nag njiital gëm sa bopp mooy ni xamle moom dafa gis ne fii réew mi toll caabi jàmm ji président Macky Sall moo ko yor te moom doxul ci luy andi jàmm moom nag mi ngi woon généraux dafa leen bëgg a wax li am dëgg euh, wax li sooke mbir yi dëgg te nee na lu njig njaak président Macky Sall moom moo di njaak ñu teew lay kàddoom moom ak Alioune Kane euh, ñu ñëw gis xalif bi comme ni ñu ko mus a xamee muy nit ku xel mi yaatu lool muy nit koo xam ne ci jàmm lay nit koo xam ne ci dal la mus woo senegal moom lay dox ci Afrique. Mhm. ñu sol suñu dàll ñëw gis xalif bi. Mhm. Cheikh Mahi waxtaan ak moom ci situation réew mi waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi Sénégal di traversé biir nañu ne moo na ko gën a xam sax waaye jaadu na ci taxawaay bi ñu am ci réew mi ñu nit ñu ñëw waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi am ci Sénégal. Mhm. alors euh, waxtaan nañu déglu nañu may nañu nopp comprendre na également taxawaay bi nga xam ne ñun moom la ñu am. jàmm rek la ñu bëgg woote ci Sénégal mais kenn dong mooy yor jàmm ji ci Sénégal mooy président Macky Sall. tey nag ñëpp gis nañu ne Macky Sall bëggul jàmm Macky Sall doxul ci jàmm wala moom même bu wootee jàmm jëfewul jàmm. alors kon jaadu na ñu nit ñu dem ci kilifa yi waxtaan ak ñoom ginnaaw bi ñu remarqué ne moom Macky Sall mu ngi dem ci këru diine yi bu demee di fa wax wax joo xam ne méngoowul ak li am mooy ne. Sénégal dafa am ay terroristes dafa am ay forces occultes ma ne la seule force occulte au Sénégal c'est cette force incontrolable c'est cette force nuisible qui est en Macky Sall te fi mu nekk nii ku ne xam na ne fitna gi ci réew mi pour dal am ci réew mi ci ay mbaggam dong la nekk mu ngoog Bougane Gueye Dany ba mu génnee it wax na ci signal Walfadjri bi ñu coupé mu ngi koy ñaawlu nee na lii dafay firndee ne kon jaay doole ga nga xam ne président Macky Sall moom la nekk ci mim réew ñu teewlu ay kàddoom. objectif bi 2 millions la. Euh, jour bu njëkk bi bi ñu distribuer dakaar rek yegg nañu cinq cent quarante mille cartes ci loo xam ne dañ koy jaay 100 francs euh, nit ñi di ko xëccoo day wane rek euh, nit ñi pare nañu ci Macky Sall nit ñi bëggatuñu. Macky Sall parce que Macky Sall wane na tëleem wane na fi mu bëgg jëme réew mi wane na lii mu yéene Sénégalais yi bi ci mujj mooy tëj bi nga xam ne tëj nañu ko wal fajri euh, démb tëj jour doog leen yónnee décision bi nga xam ne nee nañu moo motiver seen décision boobu euh, réew mi wóoratul sax parce que bu fekkee ne njiit fa mu toog lay toog am sañ-sañu bokkulook yow moom xalaat bokkul ak yow gis-gis mun a jël yet dóor ko ci sa kaw parce que tout simplement ànduloo ak moom ci xalaat je crois que c'est un précédent dangereux et les Sénégalais ont compris les Sénégalais bëgguñu doxalin bi Macky Sall am parce que mënoo jël justice di ci éliminer ay candidats def na ko xalifa Sall def na ko Karim Wade mi ngi koy jéem ci Ousmane Sonko noonu la ko nar a defee ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen et les Sénégalais sont prêts à la Mamadou na ba lecture ngay def euh, ci euh, façon bi nga xam ne Bougane Gueye Dany mu ngi koy doxalee jamono ji oui euh, démarche la boo xam ne bu ñu mën a comprendre dans la mesure où lu mu bëgg a wane moom mooy la nature a horreur du vide benn ñaareel ba mooy waruñu bàyyi seen wujju muy dem fu ne ak kàddu ba mu fa mën a yëkkati ñoomit it duñu dem topp ko pour wax fa tamit la nga xam ne jàpp nañ ne lool la xalif yi war a mën a dégg ñoom ci seen i kàddu donc démarche la boo xam ne opposition bi naturellement bu nekk dans son rôle et loolu la Bougane Gueye Dany di jouer tey ji nii gis na ne le président Macky Sall dem na Touba mu dem Touba jàpp na ne dem na war na dem ci yeneen famille religieuse yëpp yu nekk ci réew mi pour waxtaan ak ñoom wax leen toyu tolluwaayu réew mi jafe-jafe yu ñu am ak véritablement tey jii nii lan moo ci war a doon taxawaay képp ku mu mënti doon donc c'est une démarche boo xam te ne nii bu ñuy comprendre la un opposant qui joue son rôle euh, di opposé wu ki nga xam ne moom la def focus comme ni ñu koy waxee mooy terme bu gën a xew léegi mooy le président Macky Sall la def focus parce que fa mu toog moom euh, euh, euh, chaise boobu lay lor ne donc jàpp na ne si stratégie bi nga xam ne opposition bi war na ko doxal et ce qui est tout à fait normal moo di fépp fu Macky Sall teg tànkam ñoom it ñu war fa mën a teg seen tànk pour que nit ñi mën a am peut-être les informations yi nga xam ne dina leen tax ëllëg ñu mën a xam te mën a ràññale par rapport ak justement droit de vote ak peut-être éventuellement décision yu ñuy mën a jël par rapport ak li nga xam ne moom mooy falum njiitum réew mi Fofana manifestation yi amoon ci Cheikh Anta Diop anam nga nu ko def bu yeboo ña sooki mbir ya soo moytu dañ leen jàpp benn par benn nu samay kaddu euh, Maguette seen mooy ni xamle ci bi mu nekkee ganu seen émission toute la vérité à Fabrice Ngema moom ngay xamal ne kon vidéo euh, euh, de surveillance yi caméra de surveillance yi filmé na ña sooke mbir ma te am na sax tur yu mu tudd ne ñoo ñooñee Pastef la ñu bokk te ñoo sooke mbir yi en tout cas déggool nañu plainte du samay kàddu Maguette Sène ay kàddoom la ñu teewlu ko euh, Fabrice Nguema. C'était des étudiants qui faisaient face à la police. Il n'y que des étudiants. y a un message qui a été des li ma mën a wax li xewoon ci université mooy ah. euh, waa PASTEF seen loxo jógu ci ndax ba mbir yi amee gis nañ ni dañu doon lancé ay messages ci réseaux sociaux yi di wax seen militants yi nañu dem song li nga xamante ne mooy université euh, Cheikh Anta Diop man am naa ci lu ma leer ndax euh, am na ko xamante ne ñëpp xam nañ ko muy Outoumane Diagne moom d'ailleurs sax def na ay publications ci réseaux sociaux yi nee nañu dem attaqué université Cheikh Anta Diop d'ailleurs sax am na ay capture yu bëri nga xamante ne moo ngi nii ma yor sama téléphone waaye li ma ci mën a wax mooy ñoom seen objectif atteindre ñu ko ndax lu ñu bëggoon mooy reyante am bakkantuuru waaye ñoo ngi sant yàlla ba université amul kenn koo xamante ne ñàkk na bakkanam ci yile manifester foofu ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Ils ont cassé l'université et tout, en tout cas les déverser sur l'avenue Cheikh Anta Diop seen directeur bu kudd ba tey ci manifestation yooyee gis nañ ci ab photo bu nga xam ne ni daanaka takk der yi dañu jël ab xale def ko seen kanam ni ab bouclier loole nag euh, coalition nationale des associations ak ONG yi nga xam ne dañuy taxawu xale ñu ngi koy euh, ñaawlu ñu ngi ko xam le ci ab session de formation bi ñu door ci Sédhiou leeraleex Ibrahima Diallo ay xale yu ndaw yu ñuy utiliser comme bouclier humain ci manifester ñu nemmeeku ci même réew nekk na loi coalition nationale des associations et en faveur des enfants CONAF di ŋàññi kii di Justine Leson moo nekk secrétaire exécutive bu CONAF. toog waxtaan ñun ci yan anam la ñuy mënee dugal droit de l'enfant yi ci seen i budget donc loolu bu nekkee ñun dañuy gën a sawar ci jàppale leen gis nañ tamit ay problèmes yu bëri ñi nga xamante ne muy état civil muy mariage d'enfant muy euh, xarafal jigéen yoo xamante euh, région yi dañ ko ëmb Moustapha Dabo nekk maire conseil municipal des enfants commune bu Sédhiou rafetul benn yoon traitement bu ni xalaat xalaat bu ci am mooy xalaat bu si ñëpp am presque du lu baax parce que xale place am lu ci manifestation xale place am lu ci prison mënuñ jël ay xale di leen tëj ay xale di leen di euh, et de surcroît di jël xale di ko utiliser comme bouclier di ko ñaawlu di ko ñaawlu parce que du acte bu rafet. kaddu yi lee jotoon nañu leen rotal planification ak budgétisation fu ñuy jëlee en compte xale yi nekk ci initiative waa CONAF en partenariat ak waa UNICEF. ñuy utiliser wala benn xale bi ñu utiliser woon def ko bouclier ci manifestation yi metti na lool ONG yi nga xam ne ñooy taxaw xale yi. waaw loolu képp ku mu mënti doon dalay metti. rawatina képp kuy waajur sax. ak képp kuy waajur. c'est à dénoncer te loolu kenn du ci ànd ak kenn ci l'école yi. xale yu ñuy jël di leen génn di leen manifesteloo loolu teguwul fenn palaasu xale mooy jàng palaasu xale mooy mu nekk ci ay conditions yoo xamante ne ni kat dina mën a acquérir lu ñuy tuddee la savoir ñu jàngal ko lan mooy citoyenneté ñu jàngal ko lan nga mën nan ngay def pour nekk un citoyen modèle lan mooy sa devoir ak lan mooy say droit xale ci loolu nañ ko war a tënk yar ko ci mais pas génn la pour nga dem ne wéy ay nit a ngi kas ñi ngi ñi ngi ñi ngi toj xale bi topp ca moom it di toj et day jàpp na ne loolu moo jaadu loolu moo baax ay ñi ngi piller ay commerce jàmbur sàcc seen